mais wax na dëgg wax na dëgg ah tabaarakallaahu daaw bi nu fiy jóge dañu waxoon ñépp ree te itam ñu wax ñépp ree yàlla na sax ilal abad nag sëñ Cheikh Tidiane si daal nee na ku ko ci ku koy ñaanal ñaanal ko lii sax wa rabbil kaabati moo ko wax waaw nee na ku koy ñaanal ñaanal ko lii sax parce que mission la te mag ñépp ko ci jox carte blanche waaw nee na daal nañ ko ci ñaanal mooy li ko yitte kon nag fa mu ko bëgg a yóbbu yàlla na ko fa yóbbu ci barke mag ñi tabaarakallah ñépp ci bég billaahi ñépp ñépp ñépp ci bég wax naa leen fii daaw ma ni leen Cheikh El Hadji Mansour yàlla yàlla yokk leen wax naa leen ni moo njëkk a tàggee sëñ Babacar si sëñ Cheikh wallahi moom Hadj Mansour kër gi dañu am conflit ñeenti at kenn gisewul nag sa borom sa pabeel Hadj Mansour toog rek yónnee ni wax leen Cheikh mu ñëw wuy si ñu wax ko sëñ Cheikh mu yéeg ci kaw pour tàggu soxna si soxnaas naka la ñëw rek soxnaas tu ko xamoon nit la soxnaas tu xool ko ne lu xew mu ne ko góor gi laa soxla woon waaw mu ne ko sama Pape El daf ma woolu ma bëggoon ko tàggu pour dem wuy jikko soxnaas su ne ko sa Pape El woolu la ngay tàggu sa papa lu tax demal wuy jikko ni ko bu leen wolofe ba mu ëpp ni ko gis ngeen yéen fii yilifu leen ko Sëriñ Mbay Mansour ak Maodo ko yëlif yéen foofu ngeen yëlif waaw bu la sa Pape wooyee demal wuy ji ko sëñ Cheikh dem wuy ji ko ca gannaaw timis te maa ko fekk mu teg ni der bu cuxur boobu mu daan jullee nee na ma ñëw nuyu ko toog rek mu ni ma ah mu ni ma def ma njëkk ni cheikh ndax mës nga dégg ni jëw naa la cheikh alxaaji Mansour ak dignitéem ak ngorom du jëw mukk bi mu laajee sëñ Cheikh ni ko ndax mës nga dégg ne jëw naa la sëñ Cheikh daf ko ni kenn mësuma ko wax mu ne ko rus naa ko ndax ñett mu ne ko rus naa ko ndax Alaaji Abdou Kan mi jur seen yaay ku mu mës di nuyu ci ñun du la nuyoo dàll daf koy sumi ngir fonk Maodo te ñun ñu jàppe ko wéy jur ni ko loolu dana tax ma rus laa jëw mu ne ko bi ko ñaareel mooy euh, bi ma gisatul sa maam ci ru xaqiqa bu ma ko joxoon sa papa laa ko teg ci loxo mu ne ko loolu dana tax duma la jiw mu ne ko bi ko ñetteel mu ne ko yow Cheikh danga am jikko boo xam ni yàlla la ko jox te muy jikko bu ma neex mooy sa fayda bu ko xamaloon ni bu ma gisoon ma joos bu gëmul yàlla yëpp am fayda foog ma sopp ko mu ne ko kon yow boo amee fayda ma jur la du ko gëme mu ne ko ñetti moo tax duma duma la jëw mu ne ko li ma bëgg a waxtaan ak yow tey nag mooy sa papa dafay dem dama nit duma fi toog wallaahi ko dafay dem te man duma fi toog mukk goon rekk yéen xale yi ngeen seet nu ngeen juboo ni ko parce que mag sa papa suñu conflit duñu wàññi dara ndax yàlla ñu ko nattoo ci suñu mujj dund mu ni ko mais yéen ñi ndaw bu ngeen ko bëggee yenu jëmee ko fu kenn ni ko kon coono rey leen ni ko loolu rekk la bëggoon waxtaan ak yow wallaay mais moo njëkk a tàggee sëñ Babacar tàggee boppam ah. ku xam ni meloon ak sëñ Babacar itam loolu du la jaax wallahi ah tabarakallahu ñoom kenn xamul ban xeetu nit lañ ah. waaw seen may tabarakallahu seen leer tabarakallahu